ziar ci fête bi nga xamante ne Sénégal yëpp ko moom muy 64e anniversaire wu sunu indépendance. république du Sénégal moo ñu mag te fii la ñuy dem bàyyi ko fi muy sunu réew euh, drapeau bi ak li muy symboliser yëpp day wane ne Sénégal benn bopp la Sénégal moom na boppam yàgg na te Sénégal réew bu mag la kon dañuy remercier. la gendarmerie bu Diass di leen demander rek ñu transmettre no remerciements au commandement et également di gërëm population wu Diass yi fi teew euh, Sénégal am nañu pré njiitu réew bu bees muy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér yàlla may ko également dal yàlla may ko kattan bu continuer œuvre bi nga xamante ne ñi ko jiitu woon bay nañ ci seen waar.